mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar euh, ñu ngi ziar ñëpp di baal ñëpp ak di baal ñëpp ak euh, leen xamal ne rek concept bu bees lañ bëgg indi ci jumaa ji incha allah ajjuma yi ñi nga xamante ni nii amuñu amuñu temps wala mënuñoo ñëw fekkee jumaa ji euh, ñu leen di indil xutba imam en temps réel incha allahu rabbi fa la innovation la xale yi vraiment ñoom ñoo ci taxaw surtout manam xalé yi nga xamni ño taxaw wa pasteur fi ci gox bi te inshallah bëgg nañ ko gëna yaatal bu nexé yalla aljuma bu jor rek comme ça ñi nga xamni tewu ñu jumaaji ak ñi tewu ñep mëna déglu khutba imam inshallah rabbi